Thiès Thiès waaw Thiès laa jógee waaw dama ñëw ci liggéey bi waaw waaw waaw ah, lii de xanaa sant rek liggéey bi moom xanaa de ñaan di ci fasal sëriñ bi rek mu yàgg fi tëwér ci barke borom Touba waaw ak waa Thiès yëpp ak murit yëpp ak képp ku am yéene ñëw te ñëwul rek yal na suñu borom defal tawfeex fii ci biir tool bi waaw xanaa ñu ñu ñu maanaam ñu góorgóorlu ci xéwali suñu borom yi ñu suñu borom booleel rek ndax liggéeyu Serigne Touba bi moom maanaam jàpp nañ ni euh, niñ koy waxee sax tur la rek mooy liggéeyu Serigne Touba waaye jariñu ci njariñ yi mu fi bàyyee fi am Serigne bi moom moo liggéey ba liggéeyaaleel ñu kon liñ fi bàyyi mi ngi mel ni añ ak reer kon képp ku ñëw lagan wala nga dem Touba Darou Salaam wala xel koom fu mu mën a doon ci wooteb Serigne bi na nga jàpp ni. leneen li ñuy wootewaat muy ñëw yàlla na nga ko fekk waaye bul ni demoon naa ca bële waaw ndax kenn du ni reeroon naa tey du ma reer suba wala añ naa démb du ma añ suba kon tey jii lii mooy ndab li nañ ci xewlu bu baax baax. yàlla bu baax man man Mbacke laa bàyyi ko tuub waa Mbacke laa jóge waaw ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi sant bu baax Cheikh Saliou yàlla na fi yàgg tawér ci barke Sëñ Fallou luñ fi liggéey yàlla na ko yàlla nangu ci barke Sëñ. yàlla laa maa ngi tudd Astou yéel yéel laa jóge yéel waaw ci daara bi lañ waaw yal nooy suñu yu yàgg fi te ñun ñëpp ñu fekk ko. Modou Diagne laa tudd Daaru Marnaan tuba fii boori Njéene Njéene Daaru Marnaan Njéene wax waaw ñu ngi sant bu baax rek waaw sant Sëñ bu baax rek ñu ci waaru man maa ngi tudd Makhtar Diène man maa ngi bàyyi ko Njéene Lagane waaw ñoo ci liggéey bi rek waaw tawfeex ju rëy rëy kay tawfeex ju rëy rëy kay sant Serigne rek waaw fas yéene liggéeyal rek waaw képp ku fi ñëw daal yàlla Serigne Touba faj say aajo saa yaranoo baatinan waaw jërë ngeen man maa ngi jigéen Moussoobe Touba Moussoobe waaw ñëw fi ngir liggéey Serigne Saliou Mbacke moo ko jar moo tax maa ngi jaar lu ma mën naa ko def fii liggéey bi tas borom Tuubaa baax ah, maa ngi tudd Serigne Maguette Diaw bëgg Cheikh Saliou mu faatu Bichri diwaanu Touba Louga a fa fa lañ jógee nii waaw eh, liggéey Serigne Saliou Mbacké suñu Cheikh mu Serigne Saliou si liggéey bu bu rëy bu eh, yaatu bi bu tawféex bi mu woote nga xamante ne ñu fas yéene eh, mu woo ñu si ñu fas yéene liggéeyal day see ngërëmam te ngërëm képp lañ ci sàkku nag sàkkuñ ci leneen ngërëm suñu bisimilah. ñooy sant suñu Tuubaa bu Saalihu Baar jàngkatu xasida Touba Louga waaw ñoo ngi ziar ba Louga Louga Louga Louga lañ jóge waaw Louga waaw waaw jarama gaayi bamba yi bamba di sangub sang yi yéena di njiital donga yi am ngeen ndam tey ak ëllëg seenub sëriñ tey moo fi gën gannaaw bayit yéena fi gën moo gën sëriñ si yéen a gën nag seeni kem bég na a bég lii fàggu sax mayewu ko yitte jurey mayewu ko pexe mu jàng mayewu ko mbay du mayeb nawet bu jag ku yàlla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xam ni ak baaxa ma nag yéen a gënub sëriñ ku ne yéen a gënub murit ku ne sëriñ bu nekk na ni yéen a gënu nitam wu dog barke borom Tuubaa ñooy tuwaat baax di jéggalu sant yàlla Tijaan Luum Njaañ la bàyyi ko ànd ak euh, soxna Jaw maam Jaara Buso moo indi waaw kontaan na ci liggéey bi yal yàlla fay fay ñëpp ci bak si Saliou Mbacké yal yàlla taxaw taxaw bépp jullit ci barke borom Touba jërëjëf fa sëñ bi. Euh, man tudd seex mbay jógee Touba Thion daara sëñ Fallou Mbacké sëñ Modou Faty Khary fa lañ jóge waaw waaw fa laa jóge waaw booba léegi maa ngi ci liggéey waaye maa dara nag ndax rek bëgg a liggéey sëñ Touba ci li may lépp maa ngi ñaan suñu borom yàlla ma dimbali yàlla naa ko bokk ak murit yëpp te yi ñoom itam la ñuy liggéey yàlla naa ko bokk ak ñoom sama gars yi jërë kenn sonut kenn taayilut mar ñu xiifuñu nag yàlla fi yàgg jërë ngeen jëfati yéen ñëpp jërë ngeen ah jéggi jéggi ab dong laa mu mënul wax ah, bu baax ah waaw ah, xel ko daara sëñ Saliou waaw waaw <laughs> Njaañ Dara Sarif waaw Salif Aïdara waaw sant waaw daal sëñ Saliou lan jóge ñëw fii liggéey sëñ Saliou waaw ñëw képp ku fi teew rek yal ci aajo tey ëllëg ku teew ku ñëw ku ñëw lépp yal ci aajo ak sëñ sant rek ñu ngi sant rek waaw di ñaanal mbooloo mi yëpp képp ku fi teew rek man Ndande Fall laa jógee Ndande Fall waaw ci lool waaw lool waaye sant rek comme que fekk nañ ko ay at yu bari ñuy ñaan yàlla di ko gën a fekk rek heure bi sëñ bi wootee déedéet xalaatuñ ko sax du du déedéet duñ dellu kay amuñu benn yitte fi mu nekk nii kase loolu kase ñu fi bàyyi fi mu nekk nii waaw mu yàgg fi rewal te wér yàgg kaa woote te gars bi ñuy ñëw ñu am ay xéewal waaw am ay xéewal jaajëf. Touba laa jógee waaw waaw ñu ngi fi waaw ba mu jeex kay incha allah rabbi waaw dañ tay ñun ñooy waa daayira Taysiroul Assir soppe sëñ Cheikh Saliou waaw Abdou Sarr Touba Mbori Abdou Sarr Touba Mbobay sant sëñ Touba rek liggéey sëñ Touba rek góorgóor rek nekk ay murid sadiya waaw li fi waay fas daal yar na ko sëriñ bi defal si barke sëñ Touba Abdoulahat Mbacke Njaañ laa jóge waaye maa ngi dëkk waa Touba waaw moom Serigne Baara mu Serigne Fallou waa kër Serigne Balla Dior ñu leen di siyaare bu baax waaw waaw <laughs> fas yéene liggéeyal Serigne Touba rek waaw di ñaan télé bi jëm sa kaw sa kanam rek waaw waaw waaw ah ñu ñu ñu futtiku rek te liggéeyalal sëñ bi xam nga ñun moom dañuy dañuy am kersa ndax sëñ Touba lim liggéeyal mënuñu kaa fayal. kon dañuy dañ dañuy jéem rek xam naa àjjanay gàcce la ñuy lañ nar am sax waaye nag sëñ Tuubaa moom mënuñu kaa fay ndax lim ñu liggéeyal dafa ëpp si ñun waaw. maa ngi bàyyi ko Njenn Lagane dëkk Cheikh Issa Diène waaw dëkk Cheikh Issa Diène liggéey bi ñoo ngi si kawam rek di jéem di si ñaan suñu borom ñuy gërëm ñu daje seen ngërëm sëñ Tuuba ñu bokk ñun ñëpp macha allah liggéey bi moom neex na am na solo trop. di leen siyaare yéen ñëpp yéen ñëpp di sant sëñ Touba bu baax nag di sant bu baax maa ngi tudd Modou Kanté waaw waaw damaa ñëwoon ci liggéey si Cheikh Saliou bi waaw mais man waa kër sëñ Darou Assane Ndiaye laa waa kër sëñ Darou Assane laa léegi moo wax de yàlla macha allah lañ ci bëggoon lépp am nañ ko xeewal ak sutura ak teraanga yàlla nañ ko bu dee yàlla boole. yéen ci mu wax de yàlla ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax yéen ngi def seen liggéey liggéey moom lu waay jëf la doo ko waaw jëf jël la rek jërëjëf waaw lii tawfeex borom Touba la bëgguñ dara tawfeex borom Touba rek waaw yàlla mu la yàlla mottali yëpp jërëjëf bi yàlla na sa loxo a wér baax ko karamaan bi yéen itam jërëjëf yàlla yëpp jërëjëf jërëjëf tawfeex waaw tawfeex borom Touba la wallaay wallaay xaaxam yëpp tawfeex borom Touba la <laughs> ak ñun moom ñooy mbokki waa Touba Ngumba Ngeewul ñoo ngi jógee ba Ngumba Ngeewul jaar ak Louga ànd sañ suñ jawriñ sañ Dramé ñu ñëw si liggéey bi doon si jàpp bu baax a baax a baax loolu moo ñu yëkkati woon alhamdulilah liggéey bi mat si jàmm waaw waaw loolu moom maanaam mbégte lañ si am rek ak contentement ndax dara mënuñoo yëkkati loolu liggéey sañ Bamba bi moo ñu tax a jógee ngumba ba fii ñëw jaayante ko fekk fi nag ñu ñu gën a paseef suñu mbokki taal yi jóge ay Kaolack Touba Ndakaaru fépp lañ jógee mhm. sikkuwul nag maanaam dem gi moom fii la gën a yombee fii si Touba gii si Touba Lagane gii fii la gën a yombee maanaam liggéeyal sañ Touba moom moo gën a gaaw lu mu mën a doon ñoo gën a bëgg a dem ñëpp nag mooy ngor lañ si àndal waaw ngor lañ si àndal ba keroog ñuy dem te bu ñuy dem bu sëñ bi dogalee ta bu ñu toog loo ñu toog ñu yam ñu yamale ko fii waaw sant nañ bu baax a baax a baax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba. waaw man de ñu ngi may wax Djily euh, ture euh, gën maa xamee ci tur Gile Niang waaw di ndongoog sëriñ Cheikh Saliou Mbacké waaw di ndongo eh, ndakaaru lañ bàyyeekoo. waaw waaw waaw dëgg la fii moom xam nga fii moom daanaka bu ñu fi nekkee eh, ñëpp ay ndongo la ñu doon léegi rek laa dajeeg sëñ Abdoulaat leeru sëñ Cheikh Saliou la xàmmeewu ma ko damaa jékki-jékki man maa ko xàmmee ko sax bi ma ko xàmmee ba nuyu ko ci la jékki-jékki réeraat ma ci tool yi waaw pour wane leen ni moom daanaka xidma bi moom moom moom bi nga xam ne moom la sëñ bi woote moom moom moo fi indi ñëpp ak ku mënti doon. yàlla xam na ne li nga wax ni ak wér man mii sama wàllu bopp ci man mii laa ko sama jëmm ji laa ko xame ndax ñun euh, démb ba léegi ñu ngi fi dañoo nat fas yéenoon na ñibbi démb waaye dañoo ñëw fekk liggéey bi des man ne ñi ma àndal sañu ma fee buuse te liggéey bi matul ndax ku tedd gi ndigal lu mu joxe dañ ciy dem ba jeex ba ba jeex lu ñu mën yëpp dañ ko ciy def. waaw liggéey sëñ Tuubaa rek ka fi des nag waaw nga xam ko nga ñàkk koo xam lii liggéey sëñ Tuubaa rek moo fi des ñun moo ñu fi bàyyi bu jeexee rek yàlla nañ dem te du jeex mukk nag waaw waaw du jeex waaw pajum aajo tey ak ëllëg waaw tey ak ëllëg mhm. lagan de ku fi ñëw ren ba dewen di nga xam ni euh, ñëw ñëw gi am na njariñ ndaxte li may wax rek maanaam ku bay sa tool toppatoo ko def ci li ci war yëpp mu dem ba nga xam ni góob rek a ci des leer na la ne mën nga koo góobal sa bopp waaye woo bi muy woo doomu aadama yi si lenn dong la ci suñ saaliw suñ Cheikh saaliw nam mooy dimbali doomu aadama yi defal ci ñoom def leen defal leen tawféex képp waaw ñun ñii xam nañ ci dara ndax taw tawféex gim ñu defal ñun ñii xam nañ ko te ku ñu xam xam nga waaw di ko sant di ko sant fa sant yam foofu la ñuy tàmbalee di ko def di ko sant te di ko ñaanal mu yàgg fi lool nag te ànd ak wér mu yàgg fi lool te ànd ak wér te yàgg ñoo liggéeyoo ñu yàgg koo liggéeyal mu nangul ñu ko waaw waaw waaw loolu lañ koy ñaanal waaw waaw waaw loolu de moom loolu de moom daanaka euh, lu ñu war a def rek la ñu def ko xam nga fu ne sëñ Tuubaa dala fay teg nga koy liggéeyal ñun jàpp nañ ni lu ñu fu ñu ne rek liggéeyal sëñ Tuubaa moo ñu fa téye bu jeexee rek nañu yóbbu feneen fu ñu koy liggéeyalee képp rek loolu rek rek <laughs> jërëjëf. sifaatu saadixil muriid bil ixtisaar arbaatun nasamtuhaa xawfa ixtilaaf sant yàlla bu baax ci ñëw gi ñëw fii ci laga teg fi suñu tànk waaye bi ñëwee tam dañ fee fekk suñu mbokk di sëñ Moussa Diakhaté mi nga xam ne maam lañ ma tudde maam ma dalal jàng fa laa jàngee alxuraan fa laa xam-xam jóge fa sëñ Abdou Lahad ma sëñ Saliou kon mel ni bi may ñëw fii jàng andi woon ndax fekk na mokkal alxuraan xam nga andi fekk ma def fala iskaale bi ñuy wax kon xam na leneen fi andi woon mooy tërbiyew ak liggéey Sëñ Tuubaa fii sama mbokk daara fi nekkoon koo xam ne ci bokk sama nijaay ñu bokk si daan may maga muy sëñ Seex Lagan Lagan sëñ Lagan sax maa ko tuddee di ko woowee sëñ Lagan waaye sëñ Seex moo fi nekkoon dag maa laaj ci ciy wax du bari 1987 wala 8 bi ñu natt tool yi man maa ko doon natt boobu sëñ baa ngi njëriñam sëñ Saari mu ngi njëriñam maa natt njàppandal natt ndooka natt lagan dem natt njurul bi may natt fii nag da ciy am xesa boo xam ne am na ci loo xam ne dees na ko misaal am na ci loo xam ne ko laal <laughs> dëkk am na dëkk bu fi newoon boobu lañu daan wax lagan uhuh. dama ko natt nag tam bokk ci suufu sëñ bi te ay di dëkk ci waaye sëñ bi ne ma yow def loo def ko rek ma nat biñ demee ci biir nag am xam ñoo xam dañuy war a tuxu ndax ci suuf sëñ bi la ñuy béy te sëñ bi da koy béy te day liggéeyal sëñ Tuubaa bu njëkkoon euh, dañ naan euh, wax tool mooy toxal foore lan la wax tool mooy toxal foore waaye tool itam dëkk moo koy toxal waaye nag liggéeyal sëñ Tuubaa daa gën a faw daa xawe lépp bi ma nattee ba noppi am kilifa goo xam ne ab taalibe dafa ne woon mu war a tuxu ñëw ci sëñ bi def intervention bekk man xese ba yëguma ko bi mu ñëwee tubaaral fekk dama ca xëy ma toog mu ne ma sëñ bi laa soxla mu ne ko ah, mën naa laa yóbbu de sëñ baa ngi fii ci biir ma ma dem yëgal ko sëñ bi mu ne ma xam nga li may doxa ma ne ko déedéet mu ne ma ko nekkoon aksi te bu ba noppi nga ñëw ma wax la ma dem wax ak sëñ bi bi ñëwee sëñ bi ne ma kii de natt ab taalibe bu fa dëkkoon moom lay ñëw ngir bëgg ma bàyyee ko samay tool te daa am ku ñuy wax Ceerno xuma la Suley xuma nangam xuma ku nekkoon chef de village Mbul daal ñëw ci sëñ bi wa ah Ceerno xuma waaw sëñ bi ne ko ñuy wax Ceerno xuma daa ñëw ci man ni ma sëñ diw nee na gaa yi ko laaj tool jox na la ko nag ngir sëñ Tuubaa fekk daa am ab dëkk bu ne fële mu ne ko sëñ booba ne jox na la tool yi ngir sëñ Tuubaa sëñ bi ni ko loolu yónni wu ko woon laaj waaye nag gannaaw sëñ Tuubaa tax jox ma dinaa ko jël ndax soxla naa ko liggéey sëñ Tuubaa de astaxfirullah yónni wut kooka bàyyam dañu kooka kam yónni daa yónni doomam ab taawam la yónni ci sëñ bi ni ko ceerno xam ma dafaa ñëwoon ni da ngaa soxla suuf si ko laaj mu ne ko ah yónni ma ko de waaye nag soxla naa ko ku ma ko joxe dinaa ko liggéey sëñ Tuubaa mu nag tey eh, dañoo nekk cooroon tarut jot na danoo bëggoon nga may nu ba déwén bu ko defee nu tuxu safet bàyyi la tuuti yow nga bàyyee waaye nga bàyyi yàlla dogal bàyyi faatu ca ca nawet ba ca noor ba la bàyyam defoon ba yónni ko moom daal di koy tiri <coughs> joxut sëñ bi suusi si sëñ bi tekk rek bi nattee suuf si nag ab tali mu ñëw defal intervention sëñ bi ne ma seetlu nga le seq seq gi xew léegi xaw ma baatu seq mu ne ma tali bi léegi dañuy dañuy sobantel seen doomi sëñ yi mm-hmm. dañuy <coughs> di fonk seen tali bi ni ma xool kii bàyyi ma jox ma suuf yónni ko ci moom mu gàntal ko ma am sama suuf bopp nag ab taalib ne mu bëgg ma koo bay kon loolu jàngate gi ji nañ fonk suñuy suñuy doomi sëñ nañ fonk suñuy sëñ waaye nañ doon taalib yi liggéey sëñ Tuubaa kii ci la nekkoon sëñ Cheikh mi ko fi doon itam ci la nekkoon ndax dañ ne alxilm wal xamal huma wasilata li saadat ajal wala jawharat xam-xam ak jëfe xam-xam moo yoon wi nga xam ne ci ngay jaar ba texe àddina ak àllaxira sëñ Cheikh borom xam-xam la mm-hmm. waaye ku nangoo liggéey la mm-hmm. mur itam ñaari ko rek ak ñoqi sëñ Cheikh dana ñaq waaye dina ñoqi mm-hmm. kon najaax bi ma am ci yoonu murit am ko ci islam ñu ngi ñaanal suñu borom subhanahu wa taala moo saxal ko ci guddal ko fi dolli ko ak ñu àndal ñëpp taalibe piir la ni ma sëñ Blaat def yëkkati ma jox ma sëñ Saliou noonu la sëñ Saliou defoon yëkkati ko jox ko sëñ Blaat booba eh, yàgg na fa am nga rëmu sëñ Blaat mu doog ko waajale andi ko sëñ Souhaïbou loolu ñu bari xamuñu ko mm-hmm, mm-hmm. comme ni sëñ si di nekkee woon ni ko sëñ Abdoulaye yëkkatoon jox sëñ Saliou mm-hmm. yëf yi dañ doon weccante hmm? boo bëggee xam dëgg-dëgg sëñ Abdoulaye da nga koy seet ca sëñ Cheikh waaye boo bëggee xam dëgg-dëgg sëñ Abdoulaye seet ko ci noonu ci sëñ si rek ñoom noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mooy Cheikh Ahmadou Mbacke mu sëñ Fallou Mbacke Landang ci ndigalu sëñ Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy jiite njabootu sëñ sëñ Mat Dieng moom la ñuy waxee ci jëwriñam sëñ Bousso bi ma nga Ndakaaru dafa xaw a jagandi ne kon mu teew ak njaboot yëpp nag ak sëñ Jili Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñ su mooy sunu jëwriñ ci kër sëñ Fallou Landang moom itam mi ngi fi dafa dem seeti beneen jàg ba man deen ak sëñ Moussa mii moom itam sunu rakk la ñoo bokk benn baay ak sëñ Soy bu Mbacke mii ñoom ñoo ñoo bokk suñ Fallou ñu teewaay fii teew fii ci liggéey bi ci ndigal sëñ Sidi moom nga xam ne moo njiite njaboot sëñ Mat Jee teewal ko fi ci ci ndigalul sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy mooy nji mooy xalifa sëñ Saliou Mbacke euh, woo sëñ Sidi njaboot sëñ Mat Jee te mbokk ci njaboot gi mu yabal mu sant sëñ Sidi ak njaboot sëñ Mat Jee ñoo liggéey si fii liggéey si sëñ Touba waaye liggéeyal suñu bopp sëñ Cheikh nag ku loolu ku la ko defal ñun ñoo ko war a sant ndax moo gis njëriñ woo ñu ne yéen ñi nga xam ne kat seen i samay taalibe ngeen waaye suñuy bokk samay mbokk ngeen damaa bëgg ñu bokk liggéeyal sëñ Tuubaa jëriñu te sëñ Tuubaa ci boppam moo waxoon boppam ne ci njaareem koo xam ne si moo ko ka ko sëñ Musaa Gey yorowaay moo fekkee jotaay ba nettali ko kam ko nettali moo ko wax ne sëñ bi ci boppam moo jóg te njaareem dox ay jéego jël ay bant defar ko dajale ko taal ca togg fa aslaax jox leen ko ñu ñu réewlu ci ba noppee ñun ñun laaj ko lu tax mu ne leen saa borom moo Jibril la fi jógee léegi ne saa borom ne ma ku nee na ku liggéeyal jariñu man liggéeyal saa bopp kon sëñ Tuubaa bu dee liggéeyal boppam ngir bëgg wan ñu du ñu wan ne ku ko liggéeyal jariñu sëñ Cheikh woo ñu dañu bëgg ñu jariñu si loolu la ñu woo kon nag sëñ sëñ bi ñu ngi koy sant di ko ñaanal ci barke sëñ Cheikh Cheikh Ahmadou Dieng mi nga xam ne ñoo ko bokk ñun ñëpp muy waajur suñu soxna Xadi di suñu waajur ñun waajur suñu waajur ñu bokk lépp waaye nag sëñ Tuubaa wëlbati nag jënd lépp nag jaayee nañ loolu lépp dañ koo jaay jënd ko taalibe mooy sunu sëñ Tuubaa mooy sunu cër sëñ Tuubaa mooy lim ñu woo daf ñoo bëggal xéewal ak tura suutar ak àddina ak taraangi àddina ak àllaaxira ak muccuk àddina ak muccuk àllaaxira mu wooñ ci mbàkke ñu ngi sant di ko gërëm di ko ñaan la mu yàgg fi loolu te lu mu yéene liggéeyal Xaadimu Rasuul ñal na ko yàlla kattanal mu def ko ni mu ko bëggee ci bari Seex Saaliu Mbàkke mi xam ne mooy wajoo waaw fasaale ci ñëpp képp ku jee dañoo féete ak moom mu mooñ wooñ ci loolu waaye bépp taalibe bu ñëw ak bu ko war a ñëw si ñëwoo sax ñu ngi ñaan ci barke Seex Saaliu Mbàkke bari Xaadimu Rasuul mi tax mu ñu liggéeyloo na ci aajo yëpp faju na sëñ Tuubaa nangul ñu liggéey bi lépp sëñ sëñ Seex li ñuy yéenal ba tax ñuy woo nañ ci am lu kawe njot te moom nag lu mu ci bëgg nag amee nag nag ci am lu kawe njortam ñu yaatal ko yàlla yàlla ko yàlla saafara nu mu ko bëggee dama ni ma leen dama ne ne lépp loo xam ne yéene na ko liggéeyal Xaadimu Rasuul yàlla na ko yàlla kattanal bi jaay Xaadimu Rasuul ba mu def ko na mu ko bëggee ñu ànd koog moom kon ñu ngi leen sant di leen gërëm tam yéen jëwrin nii xam nañ lépp daanaka boo ko toppee di ko wax day bari waaye xam nañ ne daal ñun daal dañ ñoo bëggal xéewal woo ñu ci xéewal gi waaye xam nañ ne nag ki ñu woo li ñuy doy xam nañ ko ñu ko ñu ngi koy sant daanaka mën na tuutee ci des incha allah léegi la ci wax sëñ Youssou Diagne jàpp nañ ne féeg waxtu rek wala waxtu dañ dañ ko mën a àggale moo tax dañoo bëgg dañoo bëgg sax ni nañ nañ bu ñu añi nañ ko àggale doog añi waa ji di wàcc wàcc di waat xaju fi moo tax lañ bëgg seen soññi taalibe yi bu kenn añi nañ toog léegi àggale ko doog añ incha allah jërë ngeen jëf ñu ngi sant di gërëm jërëjëf jërë ngeen ba tey rek ñu ngi ànd ak euh, yéen ci la ngóobum lagan mi ñu ngi jàkkaarloo ak sëriñ falilu Tine euh, mu Serigne Mountakha bokk ci ñi nga xam ne saa yu Serigne bi woote lagan da ngeen dégg kàddoom sëñ Saliou euh, Falilou yaa ngi ñëw ci liggéey bi ànd ak waa sanc Daaru Salaam yëpp naka nga gis liggéey bi ak naka taxawaay bi. Serigne Fallou Gala Sylla ñu ngi sant bu baax a baax a baax tey ñaanal Serigne bi mu yàgg fi te ànd ak te ñaanal Serigne Saliou yàlla dolle ko ay leer ndax day ñun day sant rek la def te wér nga wér nañu lii sa seede la ci yow ndax sëñ Fallou ah, lii ngay wax féete ñeme péete da di lu lu wér te dañ koo gis ci yow kon nag loolu ngay wax toujours dañ koy def ndax Serigne saaliwu bu ne laa xoolal fii yaakaar naa ne xef sax waroo koo def kon nag ñun dey ñu ngi toppandoo. suñu sëriñ suñu lépp di sëriñ Muntaxa di xariñu xaritub sëb sëriñ di sëriñ Seex gayndeg Daaru Salaam doon lu nekk nag te wënewu ko fenn sëñ Fallu li tax ma di la ko wax dama ko gis te yàlla baaxe ma ma bokk Daaru Minam teñ xejjal ma ci Daaru Salaam sëñ Fallu ñu ngi sant bu baax te ñaanal sëñ Seex lii yàgg lool jëwrin yi itam ñu ngi leen di soññ bu baax te fas yéene sëriñ bi ni mu toogee ñuy wut bëgg-bëggam rek di ko def bëgg-bëggam boobu moo di ne yaatal yaatal googu nga xam ne moom ngay yaatal ñun la ñuy yaatal gone yi la ñuy dimbali nañ leen dimbali ndax ñu ngi ñoddi ak mag te lii ñu nekk nag mag ñee ñu ko digaloon looloo tax ñu def ko kon nag sëñ Fallou lii nga toog di wax te lii ma gis nga koy wax xalifa sëñ Aliou Seck day di lu wér ndax bu nit ñi dee doon kilifa itam nit ñi leen di jajj di leen wonu yoon di wane yoonu sëriñ Touba da nga caa bokk kon nag lii nga ñu fekk ci liggéey bi sant nañ yàlla bu baax sant Serigne Touba bu baax te xam ne lii lenn defu ko Serigne Touba rek ko def. kon nag ñu ngi ñaanal bu baax a baax a baax suñu xalifa di xalifa Serigne Mor Maane di sëriñ Basirou waaye ñu ngi ñaan nag. jëwrin yii ñu dajeel fii di ñaanal sëriñ Moustapha Jaxate moom sëriñ Xayri Jaxate di ko ñaanal te di xam ne xel nag sëñ Moustapha gone la lool sëñ fi waaye ku jërë ñaanal la ndax ni ko sëriñ Moustapha ne ko sëñ eh, sëñ Seex Saaliw jàppee te ba kanam di soxlawu ci dara dara dara lu liggéeyal sëñ Touba loolu laa xamee woon nag sëñ Xayri biñ ma joxee sëñ sëtu Jaxate noonu laa ko xamee woon sëriñ Muntaxa mii bokk ak moom ak sëñ Mutaba léppam la jëloon jox ko di ànd ak sëñ Seex Abdu Jenn moom maam Isaa Jenn dim caatam di gëstu mbirum sëriñ Tuubaa mi nii nga daan def man nag lii nga ma gisee dama ki ma yar di sëriñ Amsatu dama daan gis mu daan doxi nii am daraja lool ci sëriñ Tuubaa te wane wu ko kon boog jërë ngeen jëf góor góorlu leen nañ góorgóorlu te fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa te lu waay bëgg wut ko fii loo fi wut am ko jërë ngeen jëf. Eh, xam ngeen ne nag ngoobum saaño mi saa yuñ ko tuddee xel yëpp danañ delluwaat ca Saalum ci njabootuk ji eh, Alioune Seck Wanaar mu Serigne Touba Khadim Rasoul ma tey jii nag ñu ngi dend ak. Seck mi nga xamante ne bii mooy e, xalifa bi waaye ñu feggoo ak e, Serigne Babacar Seck mi nga xamante ne bii jëwriñ la ci biir liggéey bi te waxtu wu ne mu di ko ànd ak moom ak bokki taalibe yi Serigne Donga Dramé nekkoon jëwriñ ci kër Serigne Saliou feggoo ak Serigne Saliou Tine e, Serigne Fallou Tine sanc Daaru Salaam saa yu ñu wootee ngi dégg leen dañuy bàyyi ak Serigne Babacar mu présenté ñu wax ñu itam teewaay bi seen teewaay bi fii ci liggéey bi ak liggéey bi nga xam ne at mu jot Serigne Cheikh woo leen ci. Euh, Serigne Fallou ñu ngi leen nuyu bu baax waaw sunu teewaay de mooy teewaayu taalibe ci bu jot ndigal rek ci ci kilifaam te sunu wajur la waxoon rek dafa wax ne njëriñam murid yëpp mooy def ndigal nee na bu neexee bu tiisee na bëgg nga defar loolu nag mooy li ñu indi fii ak itam la mu waxoon ne xëyam murid téeméeri at la doublé am na ñu wax lu ëpp loolu ci jagle mu ne xëyam murid mel na ne koor ak jàng ak naafila ak jàng rek ci màgg ba muy téeméeri at waaw kon nag loolu rek moo ñu indi fii bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla sunu borom mu musul fan ku mbokkal askan te gën koo wér di ko ñaanal itam yàlla gërëm yëngatu ak dalam yëpp waaw ndax lii mu ñuy loo de xam naa ne bëgg suñu njëriñ rek a tax waaw kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax fu ñu mën a nekk waaw ñu ngi ñaanal yàlla mu yokk mu gërëm yëngatu ak dalam te guddal fanam lool te wéral ay cëram waaw xam naa ne ñeen euh, comme nañu wet ne ci wet suñu suñu wet kilifa waaw wax ji wax ji du mën a gudd <laughs> waaye lool rek amoon luñ ci wax di sant bu baax rek sëñ Fallou waaw di leen gërëm bu baax jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di fay seenam nuyoo te di leen sant di gërëm bu baax a baax a baax te di sant sëriñ bi it ci nga li nga xam ne waxtu wane moo dañu ko jox wax ne waxtu wax ne ndigal jóg na ñu xam ne ngëneel dikk na jokk dikk na sëriñ bi nag loolu waxtu wax nekk moo dañu ko defal ba tax ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax te di ko ñaanal yàlla li mu xëy na liggéeyal Serigne Saliou li mu xëy na liggéeyal Serigne Touba yàlla dimbale ko ba lépp xàkk ci jàmm xàkk ci taar itam ñu muri yi mu itam nga ngir bëgg ñu jëriñu lam bëgg ci ñoom yàlla na ko yàlla def ci kattanam ak yërmandeem daraja Cheikh Khadim daraja Cheikh Saliou Mbacké di tub di jéglu eh, man la Ibrahima Ngom eh, porte parole Serigne Saliou Sène Bambey Séréer waaw boo xoolee xam nga moom moom lañ doon wax seen Bambey seen Bambey moom foo ko waxee ci kër Sëñ Saliou rek ñun moom xam nañ ne moom euh, Saliou seen bu Bambey séeréer la daal. boo xoolee nag euh, saa su ne saa yu euh, ndigal bi jibee rek lépp loo xam ne daa wër Bambey sereer ba Bambey ba Bambey taax ñoom ñëpp dañuy mobiliser wu ci ginnaawam ngir mën a ñëw jëfee li nga xamante ne maanaam moo moo mooy ndigal li kon boo xoolee bi ñu ñëw. am na ay remorque yoo xamante ne yii eh, eh, Mbaye eh, kii Mbaye Touré waaye moo koy envoyé à chaque fois bu ñu wootee xel comme wala Lagane bu ko defee it am na beneen dongo boo xamante ne kii Fallou Ndiaye lañ ko falu Fallou Fall ci dongo yi la ci daara ji la yaro ba fi mu wàcce moom itam Bambey la dëkk mais saa su day day yebal ay camion mu ñëw ci ñun. waaw boo xoolee itam euh, forage bu Bambey Sereer bi am na camion yu yafa nekk yoo xam ne toujours dañuy disponible pour mën a indi bagage yi waaw rek noonu noonu noonu la ñuy def bu ko defee nag euh, lépp loo xamante ne lii moom euh, daa bokk ci daara ji bokk ci ñi nga xamante ne ay soppey daara ji la ñoom ñëpp dañu jàpp ci liggéey bi ci wàllu seen poos wax dëgg ba nga xamante ne ñun duñu duñu fi tuburanke lenn waa ci xiiwal ak lu mu mën di doon vraiment duñ duñ fi tuburan tuburanke lañ waaw loolu boo boo boo xoolee euh, maanaam pas-pas bi nga xamante ne maanaam daa animé dongo yi maanaam mooy indi euh, saa ñu wootee liggéey bi rek ñëpp dañuy mab ba ñëpp mabbee nag euh, liggéey li ñu naan mbooloo mooy doole rek ak liggéey bi lu mu yaatu yaatu yaatu maanaam dañ ko mën a dëkku door ko mu daanu ñu jàll ci leneen waaw boo xoolee nag kii nga xamante ne aussi Sëñ Saliou Sène la Euh, euh, wolere la ci sëñ Cerno Jon bi nga xamante ne maanaam euh, saa sune ne bu liggéey bi jot jogoon la commencé ci ndajale gerte waa ca daara quinze surtout ba fii saa sune ne maanaam dañoo dañ doon nekk dañ doon boolo nekk benn bloc ba nga xamante ne lépp loo xam ne dafa jëm ci askanu séeréer maanaam ndam rek la ndam rek la la ñuy génne ci ndigal loolee. kon nag suñ Thierno Dione ak suñ Saliou Sène mi eh, ay yooni yoon toog nañ ci kanamu suñ saali suñ Saliou Mbacké mu leen di jox ndigal bu jëm ci liggéeyu Xelcom. waaw ñu ngi ci jaag bi ñun moom sa chaque fois bu ñu ñëw eh, dañuy xam ne moom ñun suñu liggéey principal moo ñëw saytu jàg bi mën a leem dugub bi na nga xam ne moom moom day kawe njort ci ci wàllu eh, rafet. boo xoolee jaag bi war naa dem ci ay 62 mètres yaat yaatuwaay bi nekk ay 12 waaw kon loolu euh, boo xoolee ci euh, ci loolu lañ déparé xëy na nag comme dugub bi ñu ngi koy roñ paree guñu euh, mën naa weesu noon mën naa weesu noon mais moom na nat boobu moom rafet na njort ne maanaam dugub bi moom dina ko fees. pourtant nag de boo xoolee boo xoolee nag dugub bu am solo la waaw puisque Saño moom wax dëgg yàlla neex na cere waaw ngomeen laa nag mais il faut moo wax noonu ngir njuufeen yi mën a xam ne moom. Euh, waaw neex na cere c'est que nag boo xoolee ci wàllu euh, ni nawet yi di dikke boo demee côté Bawol gee maanaam nawet nawet yi xam nga nawet moom bu gàttee rek euh, ci wàllu taw maanaam saaño du mën a ñor waaw mais boo xoolee wàllu Saalum bi boo laal ci siin foofu moom saaño bi ba tey ñu ngi ko ñu ngi koy béy muy ñor vraiment ñu koy jëfandikoo. mën na cere mën na laax. nga xam ne. sëñ Touba moo ñu booleeg moom ak Cheikh Saliou Mbacké ñu am ci sens loolu nag ñun waa Kaolack ndax wax dëgg yàlla liñ ci bàyyi ci liggéey bii jëmale ko ci loxo Kaolack sant yàlla la ñu ngi ñaanal képp koo xam ne jël nga sa ñaq def ko ci suñ borom fulal la ko defal ko ay milliards ba nga gën a mën a liggéeyal sëñ Touba ñun ñi nga xam tamit ku ci joxe ku ci joxewul ak yéene ñëpp ñu ngi leen ciy fasaaleel ku si nekk li say aajo suñu borom ekkati ko lu say aajo suñu borom fajal la ko bu dee ku wéré di borom wéral la yokk lay kàttan ba ëllëg lii ñu jot def ni ngeen di ko gis ku ne man cee farlu ñu koy defal sëñ Tuubaa dañu ànd ko liggéey wax dëgg yàlla de am na ci ñoo xam ne xamee nañu liggéey bi boo kuñ ci wax acca ñuy dem ci kër sëñ bari kuñ ci nekk def sa ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm te ñaan sëñ Tuubaa mu yokkal leen lii nag li ci sëñ lii moom ñun dañoo tomb ak tawfeex sax ndax dañoo ñëw fekk fi sëñ bi sëñ Cheikh Saliou wax dëgg yàlla mu kontaan ci na gis na liggéey bi ba moo joxe ndigal sax ñu def ko fi mi ngi ci biir kon nag li ñu fi jëlee yal nañ ko sëñ Tuubaa boole ñun ñëpp ilal

jàkkaarloog ñun ñoo ngi amaat mbégte ànd ak ñoom fii ci daaray lagan muy liggéey bi nga xam ne Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Salihu woote woon na ko euh, la 14 ci weer wi yàlla dogal na mu wowoon nag mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi waaye nag mbooleem seex si nga xam ne daanañ ci taxaw moo xam muy Saalum moo xam muy Bawal moo xam muy Kajoor moo xam muy njàmbur ñoom ñëpp maase nañ daje fi liggéey liggéey bi àjjuma lañ fi ñëwoon tey ji ci dimanche ji liggéey bi lépp noppi na def nañ ko ñaari jaag lépp noppi na benn jaag bi mat na ñaar fukki ak juróom-ñett yu yaatoo fukki na tax fanweeri ak ñett yaatoo fukki mètre am na taxawaay ñaari mètre moo loolu kon yaakaar naa ne ñaari jaag la kon loolu tegtale ne mbayum saaña mi nga xam ne moom la fi sëriñ bi doon bay ci jëwriñu sëriñ Xalil Lo liggéey boobu noppi na xam ngeen ne ah, ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant sunu boroom bu baax di ñaanal Cheikh Amadou Mountakha yàlla na ko suñu borom yàggal te wéral ko di ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Saliou yàlla na ko suñu borom gën a dolli wér gën koo yàggal lii nag moom ak cant rek la ak cant nag du weesu ak cant am murit bu yàlla taw fee xele nga mën a taxaw ci liggéeyub Serigne Touba alhamdulilahi rabbil alamin jëwri ñi ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi sëriñ bi xolam sedd na taalibe yi seen xol sedd na ndax taxaw nga ci ba taxaw ci lu kawe suñ jot ñëpp te li nga def itam taalibe yëpp ko yéene. kon ñëpp nga ko defal. Sëñ Blas daraan wax naan ab taalibe boo liggéeyale Serigne Touba murid yee lay fay kon nag xooli murid yëpp sedd na ndax li nga def da ngaa yéenee ñu bari. liggéey bi nag liggéey la boo xam ne ndongo yi ko bay mën nañ koo góob waaye li waral sëriñ bi nag sakk ko ci noonu mooy daa bëgg ñu bokk tuyaaba ji rek moo tax mu woonu fi kon nag yàlla def na xéwal bi mu yeggee. sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax nag kaddu gi kaddu yi seere rek la waaye bi mu noppee la sëriñ Xaadim jóg léegi ngir àgg ji ndigal li sëriñ bi xamal ko ni liggéey bi noppi na su boobaa nag ñun ñëpp ñu maasi déglu kaddu gi jóge ci sëriñ bi jëm si ci noonu. bii fi nekk moom doomi Sëriñ Tuubaa ko sos muy sëriñ Saliou te sosu ko ciy daa dàkk barab bi ba gis ni barab bu nangoo jaamoo yàlla la barab bu nangoo liggéey yàlla la mu wéet fi lool tumuranke fi lool ba lépp agsi tey sëñ Touba rek la fa doon liggéey lu mu fi mos a bay Cheikh Abdoul Ahad la ko jox ba Cheikh la Ahad seere ci moom seere su rëy xam leen ni Serigne Saliou kët des na defar këram ndax li muy bay ba ko doon def ci kër moo ñuy dàq kër ñun ñëpp ba ba tànn ay ay cheikh ci yoonu Serigne Touba ñoom ñoo yéwénal am nekkuwaayu Serigne bi kon Serigne bi Serigne Touba rek comme sa ñor kon nag alhamdulilah rabbil bi nu suñu borom boole ci tawféex jooju ndax lépp lu nit ku baax sos ku ca ku ku ca sof rek boo ko fekkee wutam mel na ni fekke ko kon sëñ bi dañoo may sensu ñuy wéyal liggéeyub doomi sëñ Tuubaa fii kon ku ci ku fi ñëw fii ku sa aajo narata faju doo fi ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi yëkkati ay kàddu ci ndigalul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mii di jëwriñu kër sëriñ Saalihu Mbacké ñu ñaan sun borom mu yàggal ko fi lool te dolli ak wéram te nangul ko ab liggéeyam te nangu waale mbooleem koo xamante ni yaa ngi ci ginnaawam te di ko jàppale mu yëkkati rek ay kàddu yoo xam ne da koy jëmee ci mbooleem njaboot gi rawatina jëwriñ yi nga xam ne woote yim woote yëpp wuy si nañ ci te yàlla rek tax ñu wuy si ci di ko tàmbalee nag ci ki nga xam ne mooy jëwriñi liggéey bii ñu nekk tey di Samuel Sarr ak ñi mu àndal sëriñ bi di wax rek ne lam waxoon démb da koy jàppee rek ne fatiha ci ak julli da koy baamuwaat waaye cantuk démb ga mooy goog tey gi ndax la way juróom wu baax wa daan wax ne jëf ji dafay jiitu wax ji loole daf laa dal daara ji nag danga koo tànnal sa bopp féetewoo ko te féetewoo gi yemale woo ko rek ci liggéey buñ fi woote ci at mu jot dan koo def rek muy sag matt na ko sëñ Abdul waxe woon ku la xam-xam laag moom ku lay seen seen laag moom jëf ji nag daa àgg foo xam ne moom dafa baaxoowul doon ku mën a wax waaye nag ku mën a seere jëf la ci joo xam ne jëf joo xam ne jëm na ci yàlla te wóor na ko ne sa jëf ji yaa ngi ciy def loo man di ci def loo mënut di ko ànd ak say xarit ak say wëlëre waaye yàlla mi nga xam ne lu waay jëf lum tuut tuut mi ngi ciy teg bëtam nee na wóor na ko ne gis na sa jëf ji yàlla na la ko nangul nee na su la ko nangulee ba noppiit it yàlla na la ci añal su la ci añalee ba noppiit it yàlla na ci añaale képp koo xamante ni yéene nga ko loolu lépp nag na la ci defal ak mucc akuk dolliku ak àgg te mucc ci ndog yi nee na xolam sedd na guyy gis na jëf ji gis na taxawaay bi gis na it yéene ji loolu it lay wàcce waale te cant googu dooy mel ne bu ko santee dala koy sant waaleel santaaleel mbooleem ñi nga xam ne liggéey bi saa yuñ ko wootee ñoom ñëpp ñu bàyyi seeni soxla ñëw àndandoo ci liggéey bi nee na wóor na ko ne day kiy fay moom dana fay ndax du diggee lum du def te moom juboo naag boroomam te waxoon ne woowuma leen ba ngeen ñëw ma sogo bu am ab añ bi ngeen daataa ko si da ngeen fekk añ bi ne fi ba noppi kon nag nee na mi ngi ñaan ci darajey kookee nga xam ne moom la ñuy xëyal di ko gontal yal na yàlla faj aaju yëpp te musañ ci ndog yëpp te lépp luy seenug bëgg ngeen àndaale ko ci tool yi yàlla na ko sun boroom saafara def faj ci barke Cheikhul Khadim nee na xolam sedd na guyu xelam dal na liggéey it liggéey bii lam ca faral di wax rek waxtu wu ne woowu leen ne leen kaay leen liggéeyal ma kaay leen nu ànd liggéeyal sëñ Tuubaa rek lay wax ndax fas na yéene ak dundam du ci xëy menn xëy moo xam ne sëñ Tuubaa taxut ak dalamit du dal ci dara lu dul neex am xelam ci sëñ Tuubaa rek lay ne lu muy xëyal rek sëñ Tuubaa rek la cay wut ngërëmam kon nag saa yu gestoo gis leen ci ginnaawam day jàpp ne lam bëgg ci yéen dana ko mën a am ndax wóor na ko ne moom aajo du faju mukk te boroom liggéeyalul sëñ Tuubaa te wóor na ko ne it ku liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla faj say aajo te moom yitteem jëpp mooy yàlla faj seeni aajo rek kon nag alhamdulilahi rabil alamin bi nga xamee ne liggéey bi waxtu wu ne yéen a ngi ciy def lu ngeen def lu ngeen man di ci def lu ngeen mënut nee nag mi ngi leen di sant di leen gërëm yéene juree ci taalibe yi ak yéeneem juree ci taalibe yi moo ko andi de waaye du man ndax ku ne xam na ne it amoon na ngantul bañ bañ ñëw te bu ñëwoon ak bu ñëwut it mooy yem ci yéen waaye ñewent gum leen ñewent ak ñewent gum ñewent mbooloo mi ngeen ne ci àll bi la daal bu ma doon tëlee it lu ma mën a naa dem ca tool ya bañ gis ma waaye moo ko andi tey jii waaye nag nee mi ngi ñaan yàlla lépp luy seenu bëgg fii ci àdduna ak ci àllaaxira yal na leen ko yàlla defal ci liggéey bi ci barke Cheikhul Khadim